jërëjëf mbokk yi nga xam ne yéenay topp télé bi nga xam ne mooy Buzz SN am nañ mbégte bu baax a baax ci seen jëmm yéen ñi nga xam ne yéenay topp seen bi ñu leen di ñaax encore ngeen dem abonné ci seen bi ndax li tax mooy lépp luy njëriñ rek fu mu mën di nekk daañ ko ñëw di ba ci yéen ñu indi ko tegal leen ko tabarkalla tere la boo xamante ne bii studio bi mu nekk moom la ñu tuddee studio 18 safar tabarkalla émission Massiyaat comme ni ma koy waxee chaque instant gis ngeen. ñu fi jot a jaar tabarkàlla wax fi garaaw loo xamante ni bii ci borom Tuubaa ndax waa dafa waxoon ni ndax air yu neex yi gaa yi di way ñeneen ñi lañ ko war a way sëñ Tuubaa moo jagoo yooyu yëpp moo tax tey ñu indi jàmbaar muy kan Serigne Saliou Gueye xasida moom defe naa ni moom monde xasida bi dootu ko laajte waaye monde bi nga xamante ne bii ñooy ëhlu Bàmba ji kenn dootu ko ci laajte muy Serigne Saliou Gueye xasida Cheikh Saliou yàlla dogal nag tubarkal comme ni ma ko waxee ñi nga xam ne ñoo génne dara ci màggal gi moom moom dañ ko caa fekk ndax li tax mooy dafa jaayante màggal gu jot mu génne Sëñ Tuubaa ay woy at ba at di ko def xam nga Sëñ Tuubaa kenn te kenn du moom ndaxte moom at mi bu nekkee juróom benn weer yu nekk da cee jël di ci di ci mu ciy tagg yi mu ciy julli ci yonent bi alayhi salaam ki nga xamante ni mooy ab dongaam nag daal ne ko man jotuma ca kee ci yow mi laa jot moo nekk fa Makka yow mi yaa nekk fii ci yow laay topp lépp loo defal kii dinaa fas yéene ma nit defal la ko donte mënu maa mel ni yow tubaarkal la ma jéem a dab saw yoon ndax ku dem ma dem ku demul ma dem ku ko wax bu dee dëgg ci boo ëllëgee boo gëstoo gis mbooloo sëñ Saliou noo ngi lay siyaar waaw salaamaaleykum rahmatullah tubaarkal euh, yéen waa bés SN TV maa bu baax a baax ñi koy seetaan ci réew mi ak bitim réew mm-hmm. la nuyu yow sëñ Pape bu baax a baax ci di la ziar tubaarkal di bu baax ci studio bi nga xam ne mooy 18 safar. studio 18 safar. ñu ñëw fi. <laughs> ngir ànd ak yow jotaay ñu ngi ci mbégte bu baax. tubarkalla ñaan jotaay bi. Mm-hmm. yal na ko sëñ Tuubaa gërëm. amiin barke sëñ Tuubaa émission bi yéen ni émission Massiyaat la tudd. émission Massiyaat. Massiyaat moom dara génn ko tax ah, tubarkalla <laughs> xasida gi tubarkalla lépp ci xasaayit la. dëgg la waaw ndax sëñ Tuubaa dafa am ku ne. Mm-hmm, moo tax mm-hmm. la bu fekkee ni ce genre euh, nit yu mel nii. waaw ñëw nañ. Mm. wax dëgg yàlla studio bi li muy am njëkkee ca warte mooy 18 safar lañ ko tuddee ki génne woy wi ki mu ko woyal mooy borom 18 di nga safar waaye safar bi ndekete kenn moom képp si njàng yow d'abord sax parce que yàlla dafa dogal man damaa gis jàngkati xasida yi ci boppam ñoo la gën a faa ci ñiy déglu jàngkati xasida yi loolu moom xaw ma biteel boobu bis la xaw ma waaye <laughs> yi faa nañ la lool alhamdulilah tubaarkal la ci wàllum njàng tubaarkal la ñëpp dañoo maase nangu ni air bii ngay jàng moom la bu raara raar boo xamante ni bii bu gaaw a jàpp nit. alhamdulilah eh, est-ce ci ubbi tuuti rek. ñu door a dugg ci waxtaan wi. bismillahi rahmani rahim. wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman. a'udhu billahi minash shaytanir rajim. وقد أيسه مني بلا تسليطه شيئا منه على شيء مني أبدا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أيس مني الله عند جاول إبليس إذ ناديته بيا ولي أيس مني الله عند جاول إبليس إذ ناديته بيا ولي نفع لغير الله وقبل في الندر بأهل بدر الأسود كدري نفع لغير الله في الدكار كل أذى لي جرح مكار علمني رحمن في سفينة بأنني خديم ذي المدينة برأني الله لدى كناكر من كل جالب إلى المناكر أصعب عني الله في كرم بزا قبل مبارزي وعني خلبزا دعاني الرحيم عند داوم له بما أغنى عن التساوم يسر للمنى لدى المرولي من خاد لي ما غاب عن كل ولي لي قال أغلى بدر أزولا من زغزغ حيث أكون الله تبصير لا إله إلا الله ساغ لغير الله فيما ينبغي ساء قلبي وأعلى الجنبان لله قد وصلت عند قلوى وسانني عما يجر البلوى كتابتي قبل لدى البحور كفت حياتي حيال المدحور علمني العليم عند ذاخرات مما يشاء وكفاني الكافرات لم ينحني عند البحور المغرقات داع لخمر أو دواع فاسخات يسر للجميل عند المحلكات ما سانني عن جالب للمشركات هبات من لي كان عند الواسعات خادت لك الكرير دا وساتعات مد لي الأنوار عند الظلمات وظالمين من كفاني صدمات سعادتي عند الإله الله لي ظهرت عند ذوي الملاحي لم ينحني عند ذوي الخمار سوى رضا باخ له أموري تحرني الله لدى أهل الكتاب من الشقاوة ومن كل عتاب أكرمني عند ذوي الإشراك من خادني إليه بالإدراك ناجيته بيا نسير يا ولي كفيتني إبليس عند جيولي وإن يريدك بخير فلا راد لفضله وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لا ريب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 dama koy wax sànq ma koy tooñ ma ne ko yow moom sam njàng daa gaaw a jàpp nit ñi waaye tabarkàlla rawatina li mu doon jàng eh, baatub subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuuna rabbil izzati sax laay wax xam balaa jàngkati alxuraan di ma corriger <laughs> di ma yàq nga baat bi wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil alamin boo demee ci suratu saafaat mooy jeexantal ba tubarkalla nga xam ne sëriñ bi dara dara génn alquran dégg naa sax nga wax nga wax ni wa man yu'tal hikma faqad utiika xayran kasiiran moom la sëñ Musaa Ka taxawee maanaam suñ borom bu la mayee hikma may na la yiw wa gën a rëy mm-hmm. sëñ Saaliw tubarkalla ci wàllum njàngum xasaayit yow heure bii ngay roy fa cosaan fan la heure bi day mm. xam na ñuy wax naan lu baax moom boo ci nekkee waaw kanam rek lay jëm Euh, sëñ Tuubaa ma ko tawfee xale rek. ndeysaan dafa dafa dafa laa dikkal rek. waaw dafa maa dikkal waaw. ci maanaam ma di ko jàng xëy na tàmbale woon na feneen nag xam nga njàng am njàng. day màgg waaw day màgg. day màgg di màgg ba fii. Mhm. wante lépp rek sant bu baax a baax. Mhm. waaw ñu ngi sant sëñ Tuubaa bu baax a baax daal. ndax li li li ko waral mooy. Mhm. Euh, am na ñoo xam ne luñ ne eskay. loola kanam rek lay jëm. barkeel. day barkeel. Euh, loolu moo ne ci air bi. tax na ñu bëree bëree ñu koy toppandoo. Mhm. di ci jàng. Mhm. di ci di ci di ci di ci di ci am ay tawféex. loolu nag ñu ngi ci sant sëñ Tuubaa bu baax a baax. ndax euh, nit. Mhm. nee na càpp dara. te nit ñi duñ ko duñ ko. duñ ko apprécier sax wala di ko di ma ci sant sëñ Tuubaa mooy. kilifa yi dañ ko dañ ko bëgg mhm. sama moromi jànkat yi nga xam ne dama bokk ak ñoom xasida yi mhm. dañ ko bëgg wallaay dëgg la mbokki taalibe yi dañ ko bëgg di ko sax kon alhamdulilah loolu rek doy na doy na ak cant tabaarkalla alayhi salaatu wasalaam sa waxoon ne man sanna sunnatan sayyatan mhm. falahu ajruha wa ajru man amala biha ila yawm alxiyam képp ku xotti yoon bu baax waaw wala nga créé lu baax suñu dana la fay sa fayu bopp à part waaye képp ku ca def maanaam képp ku ca jaar lu mu ci am dina nga ci amee lu toll te du yàq te lu ci am dara kon tabarkalla teraangay air la uy siiwit tabarkalla nga nekk nit koo xamante ne bii jàngkati xasida yi dama koy wax ci boppam ñoom ci boppam ñoo la gën a bëgg eh, boo ñu dem ba njàng mi toll fii nag nga gis daanaka yu bëri yoo xamante ne bii boo arrière tuuti ca mag ña hmm. amu ci woon nga fekk ci njàng mi léegi hmm. ci côté yokkute laay wax ndax man bokkuma ci ñiy critiqué ah, ndax it am wax dëgg yàlla adduna moo mel wax ñu nii ci njàng la bokk maxtu mu rafet ay weer yu seer yooyu yëpp ci la bokk te loolu yëpp ay teranga ko mën a am mhm. jombutum jàngkat ndax Wally Seck tey ji bu doon yéeg mhm. a rafet ci yérem lay ku a la ñu mhm. yi ko léegi ku la a rëy dara ci ci kii gën daa nekk xale loolu lan la lay def en tant que jàngkat sant rek. Mm-hmm. ndax euh, sëñ Touba. Mm-hmm. li mu bind. Mm-hmm. ba fii may wax ak yow am na ci yoo xam si ne kenn jàngu ko. Oh. te te te mbirum sëñ Touba day jëm kanam. dellu ginnaaw kanam rek lay jëm. moo tax euh, ñi nga xam ne dañu soobu ci xasida yi. nañ leen encouragé te ñaanal leen. muy ndaw. muy ku doon. même fekkee sax dangaa ngaa fekk muy def naka su dul noonu. waaw wax ko ba ci ba ci roq nga ne ko. voilà nga yedd ko. doxeel nii ak nii. Hmm. moo gën ci kuy jàng xasaay. dëgg su boobaa. Hmm. woo gën ko woo ci roq bi dana tax. Hmm. dana dana bàyyi xel baax li ko wax. te gone yi bañuñ ko leen critiquer ndax am na ñoo xam ne. Ah. dañuy bañ. sama classe gi bëgguñu ko leen di wax dara ci ci ci public. dëgg la bu fekkee dañoo def naka su dul noonu. waaw ah. woo leen ci ab roq ñu leen sawaay nanga ma naa ko boo ne doxee woon mooy gën su boobaa bu fekkee nit ku nit ku nit ku dégg dara ku xam dara la dana xam ne yow mii da nga ko bëgg a dimbali waaye mbooloo kenn du ci critiqué wallaahi moom ku xam dara du ko def li may li may ñaanal tout tànk yi uh-huh. mooy yàlla sàmm leen te aar leen uh-huh. te teg leen ci yoon wi nga xam ne moom la sëñ Touba bëgg ab jànkati xasaay mel ni. wallaay ndeysaan sëñ Touba def leen noonu. Eh, xam naa sax mën naa ci cité ku mel ni Talla. moom it yàlla koo dimbali. màggal gu jot mu defal sëñ Touba dara. waaw waaw te dégg mu lu neex ko déggee en tant que Mourtala ak niveau bi toll nii. waaw maanaam àdduna yëpp soxla ko. waaw waaw mu wëlbati ko dëgmal sëñ bu yàggul rek maa ngi déggante ak moom. Mm-hmm. ma ne ko man li nga jàng neex na ma. Mm-hmm. ndax man am jàng moom xëy na sax moom defe naa xam mm-hmm. waaye daal xam naa ne lii moom. Hmm. man moom neex na ci man. Mourtala waaw Mourtala Sène waaw. Hmm, moom dafa sama rakk di sama xarit. Hmm. naka mu doon ni mu nekk sama man jànkate xasaay di ndaw yëpp samay samay. samay samay doom lañ. ñii samay rakk lañ. ñi samay jarbaat lañ. kon man aw ma ci ak kenn xaar ma yàlla. ni mu jàngalu neex bu keneen jàngal neex it noonu laa koy waxee. man aw ma ci aw ci kenn ku may siise ci lii ak ci laa ndax man. Euh, maa ngi sant sëñ Tuubaa bu baax. ndax. Euh, li ma li ma sëñ Tuubaa defal. Mm-hmm. doy na ma sëkk. Mm-hmm. moo tax maa ngi maa maa ngi sant tey ñaanal ñëpp nag. wallaay ak yokkute ak ndam. ndeysaan barke sëñ Tuubaa. tarkalla ginnaaw bi loolu nga yow nag nga fas yéene jaayante. Mm-hmm. màggal ku jot nga nga nga nga way sëñ Tuubaa. waaw bi mooy ñaata ñaata édition nga di ko def. waaw man 2012 ba léegi. waaw. màggal gu jot maa ngi way sëñ Tuubaa. yi dafa gën nga defe naa douze ci sëñ Tuubaa. waaw. si te te te ba nga ci njëkk a def yaa ngi koy fàttaliku. waaw maa ngi maa ngi jàngoon walfal bu ñuy wax yaa man yurumu shabihan li Cheikh Ahmadou Bamba. si te te te maa sax. Cheikh Ibrahima Almasari. Cheikh Ibrahima Diouf Almasari. maa ko maa ko def ñëpp. ma daal suñ tubaab maanaam mag ñun dajale woon. wallaahi. ay kàngam dong la dajale woon. bul wujudu jamian fi la asri Ahmadou Bamba. wallaahi ndeysaan wax na ko ci wax yoo xam ne. waaw. si eh, te te te te maa ngi arab nag. waaw waaw dañuy fekk baal ba gën a ko woy ko Cheikh Ibrahima Yow Almasahir da ciy am da moom arab mu mhm. mhm. jël ci sëñ sëñ na lool li mhm. muy ñi nga xëy ci dañuy def conférence ñu bëri bëri danañ jël ci ay waxam ndax moom waxam dafa kennaloon sëñ Tuubaa génnoon sëñ Tuubaa fenn ni ni ko ñuy way wolof defee noonu la ko def ci arab waaw moom parce que xam nga boo gisee mm, arab bi di ci am solo sax di woy sëñ Tuubaa ci arab mm. dafa am naar yoo xamante ne bii moom daanaka waaw boo leen ko doon expliqué fii ba suba ci wolof duñ ko xam waaye boo leen ko bindee ci arab yëpp leen ne suñu moom <laughs> ah. naar yi ñëw Sénégal yëpp di gëstu mm, mbirum sëñ Tuubaa mbirum sëñ Tuubaa mm-hmm. boo ñemee ci waaye dañu xam ne borom Tuubaa moom borom wallaahi tabarkalla euh, ñoo ngi siyaar ab xalifaam sëñ Cheikh Ibra Diop euh, di ko ñaanal mu yàgg fit loolu te wér suñu sëriñ la mhm. suñu soppee kuy bëggee suñu njàng la mhm. sëñ Modou Diop ak sëñ Moussa Diop mhm. moom mi nga xam ne ci sëñ Muntaxa lay xëy dafa jàng wal fale Cheikh bi masaar yi sama xarit la sama soppi la maa ngi koy ziar bu baax yow nag yàlla dogal damay gis yenn saa yi kilifa xam naa doo koy faral di wax nag waaye kilifa yi dañ lay woo di fatoog yow di la jàngaloo loolu de moom nit nit ñi ko mën a am bëriwul de mën a jàng yomb na waaye am am lu mel noonu. sànq bi nga dugg fii ne yeesal njàpp. waaw dëgg <laughs> loolu kilifa yi du ku jóg ñu tax ak yow. loolu boo gisee mooy. Hmm. nit ñi kilifa yi. Hmm. njàng moo xam ne. Hmm. moom neex naa. neex naa déglu ak noos la daal maanaam mu ngi mel ni ko teg ataaya du la déranger. ba pour <laughs> tey da nga danga mën a xam kii li muy wax. te du la du la déranger te te it macha allah daal. baat yi day wér ping nañ ko bindee waaw waaw moom daal. tubarkal mm, kilifa yi ma ci jaxasoon yëpp. xëy mm. bëgg bëgg lu baax ak bëgg njàng mu baax rek. Mm. moo tax ñu ñu di ñu yitte woo di ñu woo. loolu ñu ngi sant yàlla bu baax. di ñaan yàlla mu doon ñu dimbali. mosoo ñu ci saytaane. te gan ñoo saxal ci ak taalu bi ak liggéeyal sëñ Tuubaa te sëriñ bi nangul ñu ko. tabarkalla bu mooy loolu xanaa jàngi jàngi jàngi génn di jàngi dëkk bi moom tabarkalla euh, daa mel ni moom bokk ñu ko fi ci réew mi. waaw alhamdulilah. <laughs> dama jaar place ba ñu sëñ bi daa da da da ñëwut li alo li wax naan daan dojul fépp waaye ñun ñoo ngi sant sëñ Tuubaa. waaw ndax li nu li nu di def. di jagleel. ñoo ngi sant bu baax. ndax mm-hmm. nit moom man moom damay wax ne. Mm-hmm. sama nit moom. Mhm. jaral na ma lu ne. ndax ki la ki la sopp ba di la jàngaloo bu nekkee ba kirikoro. te mu jaral ko. Mhm. yow bu la yàlla man maye toofeex na nga dem ko fa. defal ko moo tax fu nekk. Mhm. réew mi ak réew ñu war yëpp. dañ fay dem dafa jàng xasaayit. Euh, te soppee rek ñooñu fay woo. wallaay Ndiassé Diouf xasaayit dama ko doon wax ma ne ko Ndiassé tax nga seer fan yi mm. dégg naa da ngaa naqaree jubal man ma loolu man njàng mi boo bëggee Sëñ Tuubaa ba mu xam ne ñor na même bu ñu wax bu dul affaire prix sax dama lay jàngal. dëgg la waaw loolu la man damay wax loolu damay wax mm-hmm. man moom naa xam ne jaral na la. Mm-hmm. waaye su ma yëree ba xam ne yow mii am na leneen lu ci laxasu. Mm-hmm. rek mën nañoo bañ a dégg waaye su ma xamee ne yow mii jaral na la. te suñ jëmmi sëñ Tuubaa ji rek tax ko def loolu. Mm. su boobaa moom jafe-jafe yu bëri duñu duñu duñu jóor man. walaay duñu boole man ak yow. walaay ndeysaan. waaw xam naa bala ñuy duggaat ci fi ñuy jeexalee ci jotaay bi mooy safar gi. Euh, d' abord li muy def naa ah, yow moom ay groupe soppe moom def naa waaw xam naa sëñ Modou mi sax mun naa ma laajal ma ko groupe soppe ma ci mën a am jabar ndax xam moom daa tën a jabar. <laughs> groupe soppe yi maa ngi leen di ziar njiit la sëñ Modou Diaw. Mhm. di nit ku baax koo xam ne ku jàpp ci liggéey bi la. Mhm. fu mu mi ngi ñuy nemmiku. Mhm. di seet noo xam si ne rek dina liggéey bi jëme kanam. ñoo koy ziar bu baax ak sëñ Ngañ Wilane. ak mboolem soxna ya. soxna Mbène Guèye. Mm. ak mboolem ñi ñu ñi ne ci groupe soppe yëpp maa leen di a baax a baax. ginnaaw bi bi bi lii bi bi lii ñoom moom groupe soppe xam naa ne moom sax li ma leen di sant mooy damay gis sa bis bi wax dëgg yàlla taxawaay bi ñu ci taxaw. Ah, waaw kay waaw maanaam daal eh, damay gis yenn saa yi ñu ni diw ñooy fan club Balla Gaye. Balla Gaye bu bëri sax du leen woo ne maa ngi woo soppee rek nii ngay def sax di cité ay tur du naan maa ngi woo soppee rek te ñoo koy jiitu stade te seen xaalis la ñuy fay. man waxuma groupe soppe waaye sama koñ bi ma dëkk mm-hmm. man ñëpp samay soppe lañ góor ñu mag ñi ak ndaw ñi mm-hmm. ak jigéen ñëpp samay soppe lañ mm-hmm. moo tax bis may def di ci sant Sëñ Tuubaa mm-hmm. wéetuma ci ñu ma gën a bëgg bu jub see rek day gis ñoom ñëpp dañuy def seen yitte mooy bis bi rek mooy bis bi moo tax bis bi bu ñëwee mën naa ne damay damay tiim rek waaye bi ak sama kaw te loolu lépp nag grâce Ah, waa waa HLM. Mhm. ah HLM mhm. ah, mhm. bu baax a nit bu yaroo la dara jumb ko am yaray tax ñu jël nit teg ko ca kaw di ko naw ñàkk ko yaray tax ñu teggee nit ca kaw teg ci suuf luñ ci yam waaye dañ koy caw. mag ñi duñu waxantu lépp luñ la junj rek la boo ubbee ci téere yi di nga ko fa fekk. la eh, Cheikh Saliou yàlla dogal nag eh, nit ñëpp comme ni ma ko waxee maase am cofeel ci yow lool lool lool man parfois sax damay damay damay damay xaw a yaakaar ni gars yi dañ leen dëbbal suñu la tuddee ci mbooloo surtout waa Ndamaat ñoom moom dañoo yaakaar ni jàngkat yi ci àdduna yëpp yàlla ndax jàng nañu yaru moom <laughs> ñoom loolu lañu foofu maa leen di nuyu bu baax di nuyu Abdoulahi Diaw ak ñi nga xamante ne bii ñoo nekk daayira mooy bi naa fi ñëpp sëriñ Abdoulahi Dia ak Abdou Fatah Diba mi nga ne mooy président bi ak Alhaji Moussa Guèye mi nga mooy waxukaay gi di napp gone yi rek ku wax mën la dama lay effacé <laughs> eh, sëñ Saliou ci côté di si safar gi nag daj dëpp gi bi mu génnee ba léegi ba dañ ciy dugg kan kan moo la ci woo kaset bii mboolem yoonu murit kenn ku nekk xalifa bu nekk sëriñ bu nekk sab xalifa waroon na cee jënd teg ko di ko di ko bàkkoo ngir sëñ Tuubaa lan lan lan nga ci dégg bu ci ay nugal ci kilifa yi waaw eh, lii ma way sëñ Tuubaa de mm-hmm. Cheikh Abdoul Karim Samba Diarra Mbaye hmm. mais ca Ndar moo ko woyoon sëñ Touba. Ah. mu tudd Jës bul Majzob. Jës bul Majzob. waaw. Hmm. di wolofal bu yéeme boo xam ne si ni. Hmm. naa ñëpp war nañ ko am. wallaay ndax. dafa kennel sëñ Touba. Ah. da ko kenn da cee kennel sëñ Touba lool. oui ah, waaw dafa kennel sëñ Touba lool. tarkala bala ñu képp ku ko déglu. da xam ne. ci ber na Sëriñ Tuubaa amul ma ber na ko lool. bala ñoo dugg ci ci ci biir way bi jox ma ci benn baat boo xamante ne bii daal jàpp nga ne bii moom boo ci egg rek. Hmm. di nga yëg dara ci Sëriñ Tuubaa leneen lu bokk ak li nga yëgoon. waaw Cheikh Abdoul Karim Mbaye Cheikh Cheikh Abdoul Karim Samba Diar Mbaye dafa wax Sëriñ Tuubaa ne ko. Hmm. kuy faatu moo fay jëkk teew. waaw. Oh. bu ñuy jullee mu defe teew. waaw. ñuy rob mu ànd ak ñoom di teew ñu dem mu des tontu layam <laughs> maanaam ku faatu kuy faatu moo fay njëkk a teew wala ñu naan na sëñ Tuubaa ñëw na bu yàgg <laughs> si lañ koy fekk barke borom bu ñu bindee mu di yii nit ñi kàbbar naan fekk wax na li muy wax ñoom di teew mu ngi ci bi kon la gën a ñu dem moom mu des tontu layam <laughs> moo fi njëkk mujj fi moo fi barke maanaam pendant avant pendant et après. yëpp sëñ Tuubaa yëpp xanaa de kon mooy tali bi mu gën a riis ñëpp. moo gën a riis ñëpp sëñ Tuubaa. waxaat ko faatu. koy faatu moo fay jëkk a teew. wallaay bu ñuy jullee mu defa teew. Mhm. ñuy rob mu ànd ak ñoom di teew. Mhm. ñu dem mu des tontu layam. maanaam bu suñu borom ne yabale ak malaaka malaaka naa ko ay na ma rabbuka kan moo ne woon sa borom suñ tubaa ne ko yow ñëwee nañu ma wax la barke borom tubaa kii yàlla mooy borom wallaay wallaay Cheikh Samba Diarra Mbaye wax na wax na wax na wax na fii ci suñ tubaa loo xam loolu ma weneen yow wi nga wax neex na ba ba da caa teg ne seet leen na ngeen di jébbaloo seet leen na ngeen di jébbaloo waaw bii tànk tànk tànkum ñi jébbaloo bii tànk tànkum ñi jébbaloo waaw gis ñam wu neex te mosuloo ko xaw ma man luy njariñam mu ngi mën a way teg ca ne fekk ju mel ne wuute mooy fekk jamono yi ngir te sooy oh wax dëgg du def lu dul xoole ni mu looy di rëccu tey màccum tuñ tey màccum tuñum ay waay ñi kii moo riis way maanaam wax nañ sëñ bi loo xam ne waaw ba pare naan ñi soobu raw ngeen seen i maas ñi bañ nañuy ñee seen i maas wallaay ndeysaan gaal gaa ngi ñëw leen jóg leen ñaani paas wallaay <laughs> wax nga dëgg ñi soobu raw nañ seen i maas ndax li tax mooy Cheikh Ibra Fall Serigne Dame Seck mu Serigne Touba koy siyaare mm. day wax ni Cheikh Ibra Fall maanaam moom ci boppam doyoon na pour dem doon doon Cheikh Ibra Fall woote mbooloom ñëw ndax bi muy ñëw sëñ Tuubaa li góor di dajale yëpp bay doon góor yàlla dajale na ko. barke sëñ Tuubaa. dafa ñëw seeyal boppam ci sëñ Tuubaa. léegi kon te it da lay leer ni képp ku yàlla dogal ngay doomu aadama waxuma ne sëñ Tuubaa naw nga sëñ ñee seen i ko ci ñi bañ ni. waaw fi mu ne nii boo gisee xultu yu bari màggal Tuubaa ko gànn mesre di wax. ñu jublu ci ñoom duñ lekk addiya moo tax ñu araamal ko ndax li tax mooy nit ñi joxe addiya jubluwuñ leen waaw dëgg la de ko bañ seen Tuubaa boo ko xoolee kanam gi du leer wallaay barke wallaay asim boo gisee suñu borom ni summun bukkumun fahum laa yubsiruun ah. summun mooy ku ku ku ku tëx waaw ah. bukkumun ah. lu ah fahum ñoom ñëpp ñoom ñaari ñëpp laa yubsiruun ñu gis dara tey <laughs> dëgg la de maanaam nga xam ne daal sëñ Tuubaa kudul moom wadul kudul la waaji doon wax man nga yi sa gaa yee man gaa yi gaa yi waaw tubarkàlla wallaay waaw yàlla wi bi nga ko jëlee nga ne ko ko woy sax si Abdul Karim Samba Diarra Mbaye Abdul Karim Samba Diarra Mbaye moom da xanaa moom njabootam jaxasoo ngeen ni waaw waaw njabootam o nañu ma ci xam. Eh, ñooñu waroon nañoo waroon nañoo waroon nañoo jot ci way yi. danañ ko dégg incha allah. way yi mbaa def nga ko ci ay kale partagé ko. waaw incha allah ngi ci kale yi. ah ngi ci kale yi. mi ngi ci kale man rek. waaw. seulement yow joxeel sa numéro fii directement parce que li tax mooy hmm. euh, d'abord hmm. insha allahu rabbi euh, ñi ci war a jënd ñëpp hmm. euh, commercialement man maa yor bagage dinaa ko dinaa ko commercialiser fexe ba mu dem ci bërëb yi fasanti ko yoo xamante ne kenn ku nekk lam ci jot dana ko jot insha allah léegi joxe joxeel numéro directement boo xamante ne bii ku la ci woo mbaa bu la jotul dina jot koo xamante ne moom fu mu bëgg ñu livrer ko ko parce que màggal gi war nañ cee jaay waaw 77 jël numéro bi gars yi bu baax

benn dama jot wala nga jot koo xam ne dana la wax fo nooy def ba jot ci kale ci kale yi tubaarkàlla mbokk yi mu ngi noonu wax naa leen ni leen way wi mu way sëñ Touba moom dañuy jeexale jotaay bi tubaarkàlla way la woo xamante ni bii ni ngeen déggee tubaarkàlla bay yi mu ci doon toj léegi mm. moo lay wan ni way wi dafa riis ndax li tax mooy sëñ Tuubaa lépp lu ñu way nit mu neex rek sëñ Tuubaa ko gën a jagoo tabarkalla moo tax kaset euh, bi hmm. yéen ñi nga xamante ni bii yéen a ci war a jot ñëpp Cheikh Gaawaan Diouf ma nga fële ca Italie hmm. wala ci Sanèvre ci côté Suisse hmm. wala ci Suisse la nekk bokk kasetu Sëriñ Saaliw Géey bii bu soobee yàlla kale bi naa la ko joxal as Jóob soxnaam la mu ngi fii ci yëmbal dina ci jot incha allahu rabi na nga yónnee sa addiye ci numéro am na wéef de numéro bi am ah, na whatsapp tamit am na orange mu ne am na whatsapp am na wéef hmm. publicité bi gratuite lay doon na ci ñëpp am Cheikhouna Diop xasida kaset bii da nga ci am bu soobee yàlla waaw moom waaw moom moom dafa bëgg borom Touba naa mooy kenn <laughs> kennal borom Touba waaw xasida kennal borom Touba moom hmm. dafa bëgg borom tubaa hmm. sànq rek mi ngi waxtaan ak man Euh, ci ay way borom yoo xam ne dafa bëgg. Mhm. ma jot ci ba ba jàng ko. tabarkalla. kooku moom mention ci. spécial wallaay. xam naa man daal maa nangu woon man gën a a bëgg borom Tuubaa <laughs> maa nangu ma a ma bëgg borom ah. ñoo ngi koy ñaanal ñaanal jàmm doole ko. wallaay barki ne ma ko gis mu daal di daal ni ku yàlla bind daal. maa la gën a bëgg sëñ Tuubaa lii wax na wax naa ko ba noppi tamit tey. waaw moom moom moo naan. daa daa fier ci borom Tuubaa ah, daa waaye kaset bi ba léegi si njaay bi. Mm. Samba Xaye Seex Samba Xaye dernier seex seexub sëñ Sidi Muxtaar. sama xarit la. kaset bii. waaw dinaa la foo nekk dinaa ko indi nga jënd ci. wallaahi wallaahi. ak ki nga xamante ne bii tabaarkàlla mooy Serigne Pape Diouf borom gën gi. jëndal ci kaset bi. ak maa ngi maa ngi ci. ku sa xel dem woo ko ñëpp ay jënd kaset bi moom Serigne Jiri Ñang kennal sëñ Tuubaa. waaw maa ngi ko. Serigne Jiri Ñang kennal sëñ Tuubaa kaset bi dinaa fexe ba teg teg dina la ko indil foo nekk. waaw maa ngi maa ngi nuyu tey ziar it sama soppe sama xarit. sëñ Mohamed Samb soldaaru borom Touba. waaw kooku day kenn ci man ak jàppam ci man. Mhm. bir na àdduna. ndeysaan ku baax. Eh, ñëpp xam ne sama diggante ak moom. mu bëgg borom Touba lool. Mhm. bu soobee yàlla kale bi dana ci am. dana ci am incha allah man moom miinante wuñ bu baax man ak moom. waaye Serigne Saliou Seck alxuraan. moom say sama wóllëre lool lool lool moo may faral di expliquer yu bëree bëri ci moom. wallaahi mu nit ku bëri njëriñ ndaxte nee naa ko mënoon ngay ñaan foo toll di jox sa numéro man mën a diw mën a diw mën a diw waaye du ci du ko def. day toog rek jox lay njëriñ. nga dem def bu la umpee ba mënoo ci kii nga woo ko téléphone foo mën di nekk. mu leeral la gratuit te du la ne kaay fii ma seetal la di amal ci kaset bi Serigne Cheikh Faye soldaar borom Touba. amal ci kaset bi ñii mën a limal ñëpp. kenn ku nekk na nga ma jox kaleem dinaa ko yëg. incha allah Serigne Bassirou Fall alquran soldaaru alquran amal ci amal ci kaset bi. Hmm. dafa jaadu. Hmm. ak ñi nga xamante ne bii yëpp yéenay waa kër borom Touba kaset bi daal ci laay nawee nag nit yi sëñ Touba yi. incha allah <laughs> moom da xam naa daal. ku dund borom Touba daal bu ko déggee moom. waaw. moom sa xol dana sedd ndax dafa génnul borom Tuubaa fenn lépp borom Tuubaa lépp borom Tuubaa minal qadimi ilal qadimi maxal qadimi sax waaw tàmbalee ci alhamdulilahi ki may xamal bu wér te di ma may tabaarakallah xéewal ci barkeb ki mu xëy jébbal lu doon xéewal yéen gaa yi diine jege leen ma jàngal leen te dolli leen xam-xam bu wér te jafe leen ma fekk tey ay fas-fasam koo xam ne xam na lii na xam ku xamul mu wax xam mhm. xam lu xamul day tax a xam xam lu ko xam day doole <laughs> a <laughs> te te lii ma leen di bëgg a wax day dàggi xol dëggale wax jagale jëf te ku ko wax jëriñu fii ak fu nu jëm ay waa ñii daat ne nag mosuma leen a waxi neen mhm. te lii ma wax du waxi neen lii wayu xutbu la du neen yu dee fee ñu dul kemam naa lu ma gisul di ma amal lu ma yëg lu ma mhm. naa sama benn xarit bu ñuy wax taalibe Seex waaw Euh, fële la nekk euh, Ndakaaru. waaw mooy yu la déglu woon. ba mu jeex mu naan ma mu naan ma neexul ba neexul waaye kii intérêt la topp sëriñ bi. ma ne ko ma ne ko ma ne ko topp sëriñ bi. li nga wax ni sax maa ci saare sama nijaay joo xam ne. taalibe seex la. ñu ko wax sëñ Babacar ah. day kenn ci man. lépp lu ma nekk rek. ànd na koog man. dëgg la. Euh, sëñ Maame Samb soldaar borom Tuubaa mi tudde na ko doom. muy sama xarit. Hmm. di di ma jàpp lool. Hmm. te te bëgg ma. Hmm. bëgg njàng mi. léegi rek mi ngi déggante man ne ma kale bi nan laay def ba am ci. maa ngi koy nuyu di te di ko siyaare te ko ñaanal suñu borom defal ko jàmm. a ak ak mboolem. Euh, soppe yëpp rek. Mhm. barke Sëriñ kon nañ ma partagé live bi xaaral ma yónnee la lien bi yónnee ma Saliou Guèye mi lien bi mu partagé ko léegi ci ñi nga xamante ni bii. Mhm. ñoom ñooy soppe borom tubaa yi xam ne ñoo koy déglu ndax fi mu toll nii way wi damaa bëgg nga jàng ci lu bëree bëri. waaw dafa nekk en direct nii nii. incha allah bu ko defee émission bi yéen ñëpp di ngeen ko mën di topp ci YouTube bi. Mhm. ndax li tax mooy Cheikh Saliou mii <laughs> ndeysaan digganteem ak borom tubaa ku ne dafa xam fu mu fu mu fu mu fu fu eh, kii Madlo Madlo ubbil ma fi. instant mm. yaa ngi ci seen bi nga xam ne mooy Buzz SN. Mm. ah waaw waaw waaw tubarkàlla xaaral xaaral xaaral ma ma ma kii ko. Mm. léegi nag mbooloo mi. sëñ Touba lay lay lay lay lay lay way. ki nga xamante ni bii nag mooy Saliou Guèye defe naa yéen ñëpp maas ngeen xam ko ci njàngum xasida mu wér mi mu neex mi te ba pare la dal gi mu ci boole yar bi ak ay teggin. mbokk yi xam naa daf koy jàng directement yéen ñëpp ngeen dégg ko wax na ko léegi nee na safar bu jotee moom xelam yëpp ci sëñ Tuubaa lay keneen nag man doon ci sëñ Tuubaa lay dem waaye yitte jëm ci boole mooy daggal sëñ Tuubaa aw way ko ko defal chaque année bi mooy douzième édition ñuy ñaan nga ko ren téeméer at yu fekke déwén da nga fekke ko tatal ko taman ko fekke neex na waaye fekke tatal ko daa dàq lépp Cheikh Saliou hmm. xam naa nag ginnaaw ñii nga lem lim nii ba noppi hmm. dama bëgg nag moom mu doon fan ak fan lañ mën a amee amee bi bu moyee euh, kaset bi wala dañ lay jokkoo rek ku ku ma woo boo ma jotut ku ma woo boo hmm. ma jotee naa la ba bu fekkee aw mu ko naa la yebal foo xam ne ku ñu wax alhaaji alhaaji Seck waaw mu ngi fii ci station daar station vingt-huit bi waaw den ak hôpitalu 28 bi. Mhm. hôpitalu 28 bi ku ci taxaw rek. Mhm. incha allah danaa joxe numéro am léegi sax. waaw kon joxe ko léegi. incha allah numéro am léegi sëñ Modou mu ngi dox. bu ko defee. waaw ok. Euh, képp koo xëy si ne jotuma boo boo ko jotee. Mhm. incha allah boo fa demee da nga da nga da da nga da am ci son yi. dëgg la. incha allahu taala. tabarkalla. waaw eh, mbokk yi euh, comme ni mu ko waxee. numéro numéro alaaji moomu. numéro alaaji. ki nga xam ne ku bëgg ci cassette bii nga xamante ne bii Serigne Saliou moom la jàng ci màggaluk Sëñ Tuubaa gi. boo ko jotul moom ci boppam. numéro bi ngay woote mooy. 76 76. 757. 757. 90. 90. 71. 71. képp ku ci woote. boo jotee sëñ alaaji bi boo demee dan la dan dan la jox ci tabarkàlla kon xam naa tabarkàlla dañuy daal dugg ci woy wi nag hmm. ndax woy wi mooy waral jotaay bi <laughs> jotaay bi safar gi studio 18 safar fi nga ko yëkkatee waaw bismillah woy wi ba ñor la nag woy wi hmm. Eh, Cheikh Abdoul Karim Samba Diar mais da ko def ay bunti bunt bunt bi ci mujj nag laa laay laay jàng jagleel ko soppe yi waaw mooy fi ñu naan faslun faslun fii xukumi laaxirati wallaahi faslun maanaam ak lii ak teqale la fii xukumi laaxira ci atte ga yam alaaxira waaw ilaa allah isalaamu bi ahkamil haakimiin dégg loolu la mu ciy wax sëñ Tuubaa bismillah kuy faatu moo fay jëkka bu ñuy jullee mu di fa teew ñuy rog mu ànd ak ñoom di teew ñu dem mu des tontu layam seet leen na ngeen di jébbuloo bi tànk tànkum ñi jébbuloo gis ñam wu te musuloo ko xaw man luy njariñam fekke ju mel ne wuute mooy fekke jamonoy ngir te sooy du def lu dul xoole ne looy di reccu tey ma tumtuñam ñi soobu raw ngeen seeni maas ñi bañ nañuy ñee seeni maas gaal gaa ngi jóg leen ñaani paas ku yeex batar de ding ko xam xam leen di ñaani nag gëm ak yaroog torox lu ñag muñ sax fa ba ñag palak yemoong diggal ba jam woolu dëggal ak rafetal njortu te seet fas fasi xol loo xàcci loola daal di dal muy fii ba fee na ngeen ko xam moo tax ma wax ne li fas moo gën ci man dawali fas moo di fecci ak a fas moo gën di wekki ak a jëm danaa biral ci li ma fas tuuti ci xutbu bi ma fas ne moo ma doy te lii ma fas doy du fi man ca fii du barab faful di kër ci moom dara du mbir keram gi naaj la kat du ker limam di ngañ we xorom meddam witan yi di ko biiw bawkat yi siiñ ko di ko yeew di dox di xiiroo ba mu siiw teblay bu deeta daal di dem këru kudul am kër la fee moo tax ma dadu jublu fee li tax nu jóg du fii ma fee foofa la soxla woo ñu te tey ma jàngaleen nanuy fase jullit xay bàyyi mooy te xam ne jàkkam wa du borom ci kaangam baadanam te seede yaari baati seede yi tafa sellal te seede loo buur ba doy seede ci lu leer lu lëndëm te dëddu àddina te wut sëriñ bu mat sëriñ te attan yenam te bul tawat benn lu dul ay tawatam te kooka mooy bamba bu leen dëddu ba doon dese ba jóg wuti kaneen ba ci manding mi du ngeen te fekku gindi seen ngëlëm def leen ne man dama ne man labbayka bamba maa man hmm. fukki barab ma teg ca benn fu ñu fi tollu maa la gëm bakkan bu dee tàggoo di waaj saafara dañ ak galaaj soppe bi yow la nu falaaj yàlla ak sa barke maa la gëm hmm. di xar-xar le ba malaaka ak di bégal sëñ bamba yow la nu àndal yàlla ak maa la gëm buru ko banaaw soppe bi yow la nu fa aaw yàlla ak sa barke ma la gëm bu ñu nee cas yaram di rob rumaan ne jaas du nit du soppe bi yow la nu fa ngëp yàlla ak sa barke la gëm bu ñaari gaañane jalañ di laajte neex nga ne jalañ bégal nu mbég moom dootu dañ yàlla ak sa barke maa la gëm keroog bu ba xëy jabbay te àndandoo di wey keroog ga tax nga doy nu tey yàlla ak sa barke maa la gëm keroog bu taxaw te du bari tànkam te kenn du nga dul lu mu nekkul yàlla ak sa barke maa bu teere yi rot si diggante yaari wet yi ne tan yu dal te kenn du reere benn yàlla ak sa bu ñuy tëral mande xeñee seen yi wawat yu gañe ñee ñu gañe leen ñu ñee ñee yàlla ak sa barke maa la keppen ba fay sampete mooy siraat ku jéggi mbir nooy fa moom to dootu dañ ji nooy yàlla ak keroog bu mbooloo mi ne ràcc di seddaloo def ñaari pàcc bisub keroog yàlla naa la daj yàlla ak sa barke ma la gëm nu daagu jëm daaru salaam di xëy di joxantey salaam fu nu ni dee yaaleeg salaam yàlla ak sa barke ma la gëm soppe bi yii la fas ba ñëw yaakaar ci yàlla ak ci yow texe gu sax du dañ ba faw yàlla ak sa barke ma la gëm maa ngi taxaw fi sa wan ñeneen gannaaw foo mën a jëm yóbbu ma gaaw yàlla ak sa maa la gëm ku sedduwul man seddu naa ku fadduwul man faddu naa ba mat weesu naa danaa yàlla ak sa maa la gëm ku sedduwul man seddu naa ku fadduwul man faddu naa ba mat le weesu na dana yàlla ak sa barke maa la gëm subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin mbokk yi tubarkal la lii lii neex na lool daw na yaram lool tubarkal ah, la. tey benn buntu la rek. mooy ci ci buntu yi nga xam ne moo ne ci. waaye li muy riis riis riis benn buntu bi nga. benn buntu bi rek bu mu faslun fi hukmi faslu fi xukmi laaxirati. la ilaha fi xukmi laaxirati. waaw tubarkalla sëñ Saliou. dafa dogal nag euh, tubarkalla comme li nga waxoon sànq am na ci ñuy waxaan ne na nga joxe waat numéro bi. waaw sama numéro 77. 77. 671. 671. 06. 06. 71. 71. loolu mooy sama numéro 77 671 06 71. am na WhatsApp. am na Wave. am na Wave am na Orange Money. looloo baax. waaw nañ ko dugal andi sëñ Tuubaa. dégg ngeen comme ni ko gars yi waxee ci baas bi ku ko def daal yàlla boo gàttu fan ah, ba pare tabarkal la euh, cassette bi nañu fexee ñun ñëpp ñu xam ni mbégum murid yi la mbégum murid yi la ndax douzième édition mu di ko def mm-hmm. loolu moom fidèle ci bu fekkoon ne lu mu ci am lay séentu mm-hmm. ba mu ko defee ñaari ah, la xam ne ni li nga ko jagoo moo tax chaque année mu di ko def mm-hmm. même bu ci dara du dikk ni maanut ximakum li ilaa ilaa nuridu minkum jasaan wala sukuran waaye sëñ Tuubaa mooy buy dal muy dal. buy dal muy dal surtout bokk na ci ay turam buy muy dal. kon daal yéen ci xaadimul xaadim mag. sëñ Touba ak Ahmadou muy dal muy dal loo ko defal rek. Hmm. gis pay ga ci saa si. tabarkalla kon. mosuma jàng loo xam ne. Ah. murid yi yittewoowuñ ko. waaw ah. barkeelu ci ba ba ba man ma ba ba ma ma am ci kersa sax. ndeysaan waaw ah, kon yow gaa dañ laa bëgg. kon hmm. sëñ Touba. Mhm. mënuñu ko fay. tabarkalla. ñu bàyyi yàlla rek fay ñu. kon mbir mi yëmatul ci sëñ Touba ni ñu ko tuddee woon sëñ tubaa ñi naa xaadimu rasul xaadimul xadim ahmadu bamba borom jaam ñi buy dal muy dal léegi ci la bokk. waaw tabarkalla Serigne Saliou Guèye xasida moo ko ci boole. buy dal muy dal tabarkalla. <laughs> mbokk yi mu ngi noonu jërë ngeen jëf am nañ mbégte ki seen jëmm ci topp gi ak teewlu gi sëñ Saliou xam naa nga tàggatoo ak ñu ne doon seetaan. Hmm. yàlla. te am mbégte ci bokk gi bokk jotaay bi yow. yow sama waay nga yow sama waay nga. suñu soppe nga ñu ngi lay ñaanal bu baax. amiin barke sëñ Touba. Eh, suñu mm-hmm. gën laa defal xekkam. amiin barke sëñ Touba gën ubbi dënn bi. amiin barke sëñ Touba te sa xel. amiin barke sëñ Touba amiin te bàyyi la yi nga ma ñaanal moo am solo. ci sëñ Touba xaalis dong nga ci ñaanal ah, ñu bokk ci milliardaire sëñ Touba. amiin amiin amiin bokk ci milliardaire sëñ Touba. amiin barke sëñ Touba. màggal gi ñu egg nuñ ci bëgg a liggéey sëñ Touba rek Mhm. suñ borom yabalal ñu ay xéewal mhm. ba nu def ci la kawe njort te làq ci ngërëmul borom Tuubaa mhm. ñoo ngi sant daal bu baax te mbégte di di ziar bu baax suñ mooduloo mi nga xam ne moom suñu rakk la sunu xarit la boroom réew mi média di ziar bu baax a baax euh, suñu wëlëre sëriñ Abdoulahat Xasaayit euh, moom it jànk yëpp la bëgg ñoo ngi koy ziare bu baax baax baax baax Euh, di ziare bu baax daal mboolem soppi yëpp rek. ndeysaan ñëpp la bokk soppi yëpp rek ñu ngi leen di ziare. tubaarkaal te mbégte di ñaan yàlla. Mm-hmm. barkeb sëñ Touba. Mm-hmm. Euh, yal na ñaan googu mu matale yal na ñëpp am jàmm. waaw sëñ Abdoulaye nee na bu ko ñëpp yow di ko am ndax yéen a ngi ko nii yéen a nit ñi innamal ahmaalu mm-hmm. mbokk yi ngeen ñaanal ñu ñu nit sutura ak teraanga ak poos yi def dara rawatina xaalis sama diggante xaalis xaw ma ku ci dox waaye war ngeen cee dox yéen doxkati tànk jàmm yi waa ahlu jamra ak ñi nga xam ne mooy waa ànd sàmm maag xaalis dañoo am jafe-jafe ku ñu mën a jibóori ngir sëñ Tuubaa man maa am ñàkk jom bëgg ko bëgg ko wutiwaat gars yi ne nañ seytaane la waaye bokk na ci seytaane si ba gën a neex ci seytaane iblis daal bokk na bokk <laughs> na ci yitte yi ba gën a neex xaalis mi ñu seytaane la te ku xëy tàkk seytaan wuti ko Serigne Saliou Guèye lañ dalaloon ci émission Massihat waaye daal tabarkàlla mbokk yi am nañ mbégte bu baax yéen ñi doon topp live bi ci YouTube bi ngeen seetaan intégralité émission bi ci YouTube bi ak Serigne Saliou Guèye xasida ba beneen ci beneen jotaay jërë ngeen jëf sëñ mët ci caméra bi lànk bañ a takk jabar te ñëw ñu la bokk ñaanal leen ko nag balaa déwén nag jam madam naan ko ni jaay ana gan ñi xam naa dañ ko gaaw a dégg nag waaye dëgg-dëgg daal <laughs> mosal jom def ko ba beneen yoon ci beneen jotaay numéro Serigne Saliou Gueye moo nekk noonu ci barre d'écran bi à tout